وجلالي مسكني بابا مثلك ما بجاي خير من نبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي لين نيو دي لين سيار باخ دي دي لشوار فيكي ندقل الشيخ محمد المنتخى الخليفة العام لطريقة المريدية يكتك كادو ينغ خمني منكو جمعتي waa Touba ci kanam ni leen ko sëriñ bi waxee woon ci njëlbeen moo wax yaakaar ji mu am ci ñoom muy kàddu yoo xam ne adduna sëpp dégg nañ ko yaakaar jooju nag ba tey jii saa suñ xëyee de dolli ko ndax bis bu set ñu gis ci ñoom ak pëstéef bu yokk gis ci ñoom ak dogu gis ci ñoom itam ne nañ ko tàmbalee woon dara soppiwu ko loolu nag day dalaloom xel ci ne jëpp jëf joo gis mu mu yëkkati ko rek Sëriñ Tuubaa nangu na ko kon ñoom dañ leen di sant bu baax ci turu sëriñ bi gina ginnaaw boo xamee ne dellusiwaat nañ ci noonu laaj si ko ndigal ndax ñoom xam ngeen ne ñu baaxoo def lépp lu ñu yëkkati rek ba leen caa def dara dañuy ñëw ba ci sëriñ bi laaj ko ndigal bu leen waxee ñu def ko ñu wóyal ko bu leen ñu bàyyi ko ñu teg ko ci suuf loolooy seeru doxin mooy seen mandarga itam nag. bi nga xamee ne ñëw nañ laaj ci ndigal sëriñ bi ci lii sëriñ bi jox ma ndigal wax leen jox naa leen ci ndigal ndax lii kat itteel na ma itteel joxoon dara jiitu ko ci liggéey bi mooy li ñuy bëgg a tàmbali mooy fexe ba dëkk bi am taar bi méngool ci wàllu ay garab ndax garab ñëpp xam nañ li njariñam boo jëmbatee garab saasu ci nit toogee njariñ la ak ci moom rek mel na ne ab sarax la ci yow dalay fekk fa nga nekk ëllëg kon nag lu baax baax na fu ne waaye nag defe ko fii ci dëkk Sëriñ Tuubaa fi la gën a farata kon nag sëriñ bi jox na digal taalibe bi yëpp képp koo ko mën nga ànd ko ñoom ci lépp loo ci man ci sa kattan sa alal ak si jëf ak ànd ak ñoom ci liggéey bi ca tàmbali ba ba ca mujj ga ndax liggéey la bu rëy boo xam ne kat ni ñu ko bëggee bu ñu amee incha allah képp ku duggati ci duggati ci dëkk bi rek da nga xam ne soppiku na kon nag ñu leen ci soññ di leen ci ñaax di ñaan itam ñëpp. ànd ko ñoom buñ ko tàmbalee ba fañ bëgg mu àgg kon ndegam sëriñ bi eh, joxe nañ ci ndigal ñaan na ci rek bay ba xel yëpp daje ci xel yëpp dal ci ci xam ne nam rek ci am ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan na wax ne liggéeyee sëriñ Tuubaa de li ci am solo mooy façon gi waaye na muy fexee ba mu am suñ yoon néew ci ci loxo sëñ bi leneen kon nag ndegam am ngeen ci ndigalu sëñ bi rek. waaye boo seenam xel dal ci bu baax a baax. jëm moom. ginnaaw ñëpp moom loolu doon bëgg. te te borom sàggul fàggul na ko ba noppi de faaw mu am. taw tawfeex mooy mu jaare ci noonu. mu ci yitte ju mat sëkk. waaye loolu moom amul lenn lu ñuy jëm lu ci dëkk bi. doo ko gën a yitteel. garab moom. waaw garab daal di tubarkaal. incha allah بجاي خير من أبات